السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مانغي نوي مبوك سنغال يب ني فرال دي سيفر تي انترفيو يي خامنتي نانكاي فرال دي ديف نيوغي لين دي نوي بو باخ نيوغي لين دي زياره بو باخ واخناكو كيروك سما فيديو بو موجو غيس نان في اي جامونو ني دون لال اي ارميري دي تي ديف لو نياو رين جي نك ما تيل كو غيس ما الارتا تي maa ngi sant bu baax ba ma defee sama alerte askan bi dégg nañ ko autorité yi itam déglu nañ ko ba fépp ci armeer ci Sénégal wax dëgg yàlla police ak gendarmerie taxaw nañ ci taxawaay bu rafet ndaxte gëléem gi nga xamante ni man moom laa déclaré woon ni dinañ ko indi ci biir làmb ci exactement gars yi jéem nañ koo indi loolu moom man du samay wax xool leen bu baax ñi ko jot a wax le onze bi ma waxoon jéem nañ koo indi ci stade amitié di stade de Léopold Sédar Senghor gëléem gaa ngi ni ñu sëf ci cap mbaar gëléem googu armée li lañ ko bëggoon dugal ci armée lañ ko bëggoon dugal ma alerté ñëpp bàyyi xel ci loolu ndax seen intérêt la parce que dañ leen fay pour ñoom ñu yàq léegi nag man ma wax ni yàq boobu du mën a am taxaw ci te loolu intérêt Sénégal la woon du intérêt benn nit du intérêt individuel intérêt commun la pour askan bi yépp ñu jël gëléem gi yóbbu ko stade sëf ko ci camion mbaar miiru stade bi kenn du ko laam-laamee gëléem lu muy wut ci stade bi ak liñ ci jotoox yépp gëléem lan lay wut ci stade bi wax dëgg yàlla euh, sauver làmb ji pour mu am jàmm mu am salaam parce que combat bi combat de gladiateur la un combat de gladiateur bu toll nii un combat de muy lu tolloog Balla Gaye ak ni mu toll ci làmb lu tolloog Modou ak fi mu toll ci làmb ak mbooloo ak public bi leen topp mooy sensibiliser sensibilisation bi nga xamante ni dafa jëm ci làmb ji ndax làmb ji ñu bëri dañu yaakaar ni ñaari mbër yi bëri kese ñoom ñoo nekk ci làmb ji làmb ji ñi ci nekk di yàq ak di gas ak di suul dafa bari ci biir promoteurs yi Sénégal ñoo ngi may déglu xeexante bi bari na yàqante bi bari na contre promotion bi bëri na am na ñuy xamante ni ay équipe ak ay encadrement yi xamante ni lañuy def mbër mi du ko yëg te mbër mi du ko xam am na ci ñi nga xamante ni dañuy ànd ak mbër waaye bëgguñu ko te dañ koy xeex di ko yàqal te di ko jaay te duñ ko digal lu de lu baax te di ko dugal ci li nga xamante ni itam da koy yàqal pour muy am ay défaite wala muy am ay gàllankoor